ngeen yéen mbokk yi di topp seen site internet murit point info man day Thiam Saliou maa ñëwaat di seen émission reportage jàngat sa tey nag maa ngi wàcc fii nga xamante ne si moo di autoroute Ila Touba bi ñu ànd fee ki nga xamante ne si moo di Koso Ndiaye nga xamante si dañ ko war a inauguré le 20 tombeeg jeudi incha allah rabbi ñu fas ko bàyyi mu présenté wu. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah waa ñun kat euh, dañu bokk ci ñi nga xamante ne si man ko Koso Ndiaye ma présenté wu ñëw ci autoroute bi. ah ñi nga xam ne ay euh, sëfoor leen dëkk Touba juddoo fi yaroo fi ñun kat dañu bëggoon a ñëw ci li nga xam ne mu ngi doog a ubbi pour bëgg ñu waxtaan ci e, ci ci li nga xam ne mooy autoroute bi ñu am ñun ci mën a jàngate daal balaa ñu koy ubbi waxtaan loolu moo taxoon ma ñëw nag pour doon présenté wu. jërëjëf sëñ Koso présentation bi am na solo kon ñu jox maam Thierno Ndour mu présenté wu. seen waa ñu ñuy rek ndax ñun li nga xam ne moo ñu fi andi mooy comme ni ko Koso waxee rek. maanaam liggéey liggéey gu ànd ak dal parce que autoroute bi depuis ñu commencé wax ba léegi it daanaka dañuy wax rek mais ñun gisaguñ ci suñ bopp gis-gisa boobu nag mooy autoroute bi ñëpp la fi nekkal nekkulu fi chauffeur bi nekkulu fi client bi kese ñun ñëpp ñun la ñor suñ intérêt la ñun ñëpp léegi nag loolu noonu mu ñun moo ñu tax tey jii ñu ñëw fii représenté wu pour wax nit ñi maanaam nan la autoroute bi nar a doxee. station bi am na solo ma fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ne si moo di Koso Ndiaye sëñ Koso lan moo waral tey ji sa teewaay fii ci autoroute Ila Touba suñ teewaay de xanaa di ci mu waxtaan ak euh, bokki taalibe yëpp di ci waxtaan ndax ndax bu Sénégal première euh, autoroute Ila Touba ñu ngi koy ubbi kon ñu ñun waruñu see ñàkk ba ñuy jiitu. def ci suñuy waxtaan maase déggoo ci ànd ci war cee mën a liggéey ñu nga buñ ko ubbee lii suñuy li li xamante ne si askan bi daal moo ñu ñor mooy ñu fexe ba maanaam ñu ñu sartonteeg li nga xamante ne si moom mooy li nu li nu li luwaa bi wax waaw ci dawalin wi waaw ci nga xamante ni si daal moom lañ moo tax ñu ñëw fii tey ñu ne daal comme euh, xool nañ ko ba xool ne 110 la ñu wax ñun bëgg nañ daal ah, képp koo xamante ni yaa ngi yor oto di ci di dawal war ngaa xam ne lii kat moom la yoon wax ñu respecté loi yi ah kenn ku ne bañ a tooñ sa moroom képp ko xam ne jaar ci moo la neex nga jaar ci képp koo xam ne beneen yoon bi moo la neex nga jaar ci nga jaar ci ndax tamit day yombal dem beeg dikk bi rek. jërëjëf sëñ Koso leeral yooyu am na solo torop ñu bàyyi maam na moom tamit lan moo waral seen teewaay fii ci Ila autoroute Ila Touba bi. teewaay bi mooy comme nañ ko waxee rek ndax ñun am na loo xam ne leeraguñ kon mu leer ñu day baax pour ñu mën koo xam dëgg la nag chauffeur dafa bëri ay qualité mais qualité chauffeur moom comme yàlla dafa dogal ñu jox la permis transport en commun moo xam poids lur la moo xam poids léger la yow mi koy dawal war ngaa mën a am expérience ki ngay fekk ci tali bi it muy gendarme bi muy policier bi ak ku mën a doon tamit war naa mën am expérience boo xam ne boo taxawee réglement mu contrôler la normal nga nekk en règle mu bàyyi la nga dem nekkoo en régle mu xool nu mu doxee ak yow loolu tamit day am mais à chaque fois tamit yu mel noonu maanaam chauffeur ak. am doonte ni à chaque fois dañuy am ay difficulté di discuter ñoom te loolu jaru ko parce que ñun autoroute bii ñun bëggoon ñoo xam nan lay tëdde xam norme yi xam lépp loo xamante ne bii règlement la bu logique ñu mën a xam nan la loolu moom ñor nañu torop parce que ku ñu tan kuñ ci tane it dañuy bëgg nga wax ñu ni ñuy doxee ginnaaw bu loolu jàllee tamit autoroute bi ñun waa Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom waa Touba waa Njaareem waa Ndakaaru ñëpp kum ñor rek yaa ngi ci autoroute bi Sénégal nag benn bopp la mënuñu ko xar ñaar comme ñun ñëpp benn lañ ñun nan respectante suñ biir muy chauffeur bi muy client bi muy agent bi ak ku mënti doon rek respect day mën a baax pour mu dox suñ diggante mooy tax ñun lu ñu sàkku si suñ biir ñu mën koo am loolu laa si lu may sànni ci kàddu noonu leeral yooyu am na solo trop ma gestuwaat kii ci sama caamoon muy sañ ko sox ginnaaw ba nga xamante ni si yow chauffeur nga ana lan ngay dénk ñi nga xamante ni si ñooy jaar ci autorité Ila Touba bi. waaw loolu ñi ma leen dénk mooy loolu dama koy gën a waxaat euh, état loolu moo moom moom la gën a moom laa koy gën a ñaax pour ñu dénk ko parce que su fekkee dafay fi def autoroute euh, lu waay neex jóg rek parce que ñun ay pono occasion la ñu am ay vana yoo xam ne dañuy ñëw xamuñu ñaata at la nekk foofu gaare ñu ñëw ñu monteel ñu jaay ñu ko bii cinq mille bii sept mille wala yooyu léegi nag boo jógee euh, plus de vitesse yi ay cent quarante ay cent nangam loolu doo jaaduwul ci benn route comme nag loi nee na cent dix moom lañ def ci porte oto bi ñu respecté loolu dëgg la xëy na su su su su kii su su su su su péage bi ubbee radar yi dina tàkk yooyu yëpp kenn ku ci nekk tamit la nga war a daw ñu daw ko amul kii nii la amul kii diw nii la déedéet lii lu waa wax ñu respecté ko ñu loolu la ñaan aussi man boobu. loolu moom ma tax a jóg pour ne dinaa am lu may euh, fas yéene def moo ñu respecter nor norme de vitesse yi ki war a daw particulier bi nu wax ne lii la limitation kooko di sàmmonteeg loolu euh, camion bi war a daw lii mooy limitation de vitesse am camion boobu daw loolu mais nag dama pressé dama def nii boo jógee sans nangam jóg clients yi doo xam nu nga leen ne partage yi ci nekk tamit chauffeur boobu mooy diriger loolu tamit euh, ñu ngi koy ñaan état mu jóg ci wax ci ndax tamit bu ko defee accident yi dana mën a wàññeeku parce que loolu moo tax nga nekkal fi askan bi askan boobu nag ñoom li ñuy jooy léeg-léeg dañuy diggu ci oto duñu xam oto bi ni mu demee wala chauffeur bu nu mu demee loolu dañ koy ñaan chauffeur yi tamit ñu respecté code bi respecté nombre de sécurité yi bu ko defee jàmm mën a am ñuy dem si jàmm ñëw ci jàmm mais bu fekkente ne kenn ku ne na la APS bi ubbi na rek loola neex daw loolu tamit c'est pas norme bërki démb def nañ ko bi ñuy jógee nii Corbière bi ñu dugg li muy dox ci li muy dox ci vitesse bi oto bi daanoo mi ngi daanoo diggante Bambey ak euh, fii ci laa nekkoon ci biir mais heureusement ay blessures yu ndaw moo ci nekkoon kon loolu noonu ñi ngi comme Corbière moo mën a daw bay euh, pono yi toj kon nan respecte kii ci suñ pono yi tamit ñuy xool. suñ ñu mënee yombal ay pneu yu baax yoo xamante ne si yu mën a dëppoog allure yi ñuy daw loolu tamit dina ci gën a baax loolu ñu ngi koy ñaan état bi di ko ñaan tamit kilifa réew mi yëpp ñoom ñu jàpp ci ñi nga xamante ne si tamit dina mën a jëmale suñu réew mi kanam daal. jërëjëf sëñ Koso leeral bi am na solo trop macha allah maam Thierno kàddu yi Koso wax ana yan leeral nga ci def. leeral yi ma ciy def ak jàngat bi ma ciy am comme ni ko Koso waxee rek dañ koy sant gërëm ko parce que ñun ñëpp chauffeur lañ parce que chauffeur chauffeur la. bu taxi baag bu kaar baag bu mini kaar baag yëpp chauffeur la chauffeur respect mooy dawal mais am maîtrise moo lay yóbbu ci li nga bëgg parce que comme ni mu ko waxee ne pneu occasion nga yor loolu moo ci am parce que da gis boo ay pneu yi 7000 la ñuy monter naan damay daw 140 wala 160 loolu teguñu ko fenn autoroute Ila Touba bii nag defaluñ ko fi kenn ñun ñëpp. ñoo ko moom respe bi ne ci chauffeur taxi bi na ne ci chauffeur car bi nekk ci chauffeur mini car bi suñ ko defee ñun ñëpp dinañ dem chauffeur dañoo war a bokk ndey bokk bàyyi doon benn parce que boo demee ñeneen ñoo mën a gis ñu booloo doon benn dañoo booloo parce que mbooloo du doole de booloo doon benn mooy mooy am doole mooy tax nga am doole li nga xamante ne bii nag moom laa ci gën a yokk di ko ci gën a dolli mooy ñun chauffeur si muy man muy sama morom nan doole ñaax suñu bopp parce que chaque jour da gis loo xam ne day ñàkk fayda sax ñu ne chauffeur nangam ñun ñoo koy ñàkkal fayda mais fekk lu am fayda la chauffeur nag moom président fu mu jëm bu ko chauffeur dawalulul du dem sëriñ bi fu mu jëm bëgg a chauffeur dawalu loolu du dem kon chauffeur suñ borom teral na ko kilifa goo mën a yaakaar bu jógee toog ci kaw yow mii chauffeur bi dangay toog ci kaw da ngay taal mun la jëmal nii jëmal nii jëmal nii kon chauffeur yàlla defal na ko valeur kon war naa xam valeur am respecté boppam xam lim doon ku xamul la ngay jar yow da ngay xam sa prix loolu rek laa am loo xamante ne bii moom laa ci doon sànni ndax chauffeur du baat dool la chauffeur bu njëkk référence la woon mais quantité chauffeur yi ak qualité chauffeur yi ma gis am na ci ñoo xamante ne bii wax dëgg yàlla comme li ñuy wax war nañ leen a càmbaraat seggaat leen xool leen ñu yaraat leen yar boo xamante ne bii day ànd ak teggin ñu mën a am discipline parce que chauffeur moom wax dëgg yàlla chauffeur dafa war a naturel waaye chauffeur boo xamante ne bii fu ñu la fekk fii caaxaan ngay ne loolu moom wax dëgg yàlla chauffeur war na kaa génne ci boppam kon nañ gën a góorgóorlu gën a ñaax suñu bopp doole yar suñu bopp yar gi mooy chauffeur client wóorul laa wax ne la lii nga war a daw mais da ngay dugg oto client bi naan la chauffeur sa oto bi daa yeex sa oto bi daa def nii sa oto bi daa def naa client boo ko yebee wàcce ko ci jàmm moom ngay ñaan ak moom mais nekkul ne moom moo la war a conditionné yaa yor sa oto yaa xam li oto bi man bu mënee cent cent nga war a daw bu mënee cent dix cent dix nga war a daw mais da ngay dégg client bu naan la ba ma duggee ci oto diw cent quarante la doon daw wala cent soixante kooku bokkul leen bokkul leen bokkul leen qualité oto oto yi dañoo bëri te bokkuñu kon lu mu ci mën a doon rek loolu laa am lu ma ciy sànni nañ gën a yar suñ bopp ñun chauffeur si doolee yar suñ bopp doon benn jàppoo doon benn ñoo fi gis booloo nañ chauffeur doo nga fi boolowut te war nañoo booloo doon benn ku ñu jéemal ba ñoo mën a dara loolu rek moo ñu indi woon fii ñu gën ko cee dolli. am Thierno leeral yooyu am na solo trop macha allah sëñ Koso ana ban message ngay lancé ñi nga xamante si ouverture Ila Touba bi. waaw ouverture bi de comme. wax dëgg yàlla ni ñu koy lancé mooy comme nii rek ñun ñëpp ndax tamit di sargal aussi ki nu ko fi defal président bi. ndax tamit dèjà li naan bu lëg lekkee alom ne ko gërëm ci sooy euh, moo ñu defal lii dañ koy sant. di ko gërëm waa ci lii mu ñu defal ndax euh, bu ko neexoon ne benn yoon talib national bi lay defar du fi waxante autoroute kon dinañ ko sant ñun jeunesse Touba bi ñun doomi Touba yi mm-hmm.

boo gisee li tax ñu jóg ñun peuple bi moo ñu yor jeunesse bi moo ñu yor yaa ngi dégg euh, looloo tax ñu ñëw fii tey bëgg leen a waxal ne leen ah comme yéen diggante xool nañ ko di diggante ba fi appuyage bi nga xamante moo fi njëkk euh, président Ablaye Wade def ko fi 110 la ñu wax ba léegi waxagul norme yi kon nag ñun ñi suñu appuyage bi bëggatun 200 kilomètres nangam nga déparé ko di daw ci amoo benn loi boobu 140 xajul ci dara loolu la ñu bëggoon a jàllale rek di sant tamit ñëpp. di gërëm tamit euh, kilifa yi nga xamante ne si ñoo ci jàpp. Mm-hmm. yaa ngi dégg ban agsi fii dinañ ko ubbi teeru ko. teeru ñi nga xam ne ñoo fi war a ñëw ñëpp ñu ñëw fi ñu xam ne ñun kat defaluñ ko kenn Touba lañ ko defal doomi Touba yi lañ ko defal mm-hmm. ñoom ñoo ko kii kum kum neex nag boo jëmee ba Kirikoro jaar jàll mm-hmm. waa ne moom fii moo ko tax a jóg Touba lañ wax autoroute Ila Touba moom lañ bind ci taxi yëpp kon dinañ gërëm tamit ki nu ko defal nga xamante ni si moo ñëw ci ayam la tombeel dañ koy nangu duñ ku nekk di saboote déedéet waaw yàlla rek moom lañ àndal ak sëriñ Touba mi nga xamante ne si mooy borom dëkk bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tamit euh, kilifa yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ban agsi fii nii ñoom ñoo ngi leen di jàppale si liggéey bi waa merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf ñu bàyyi koog maam Thierno sa kàddu tàggatoo. waaw sama kàddu yu mujj moom mooy comme ni ma la ko waxee rek autoroute bi autoroute loolu daanaka wax naa ko ñaari yoon ba ñett autoroute bi ba neexoon président Macky Sall mu def ko Fatick mbaa mu dem ba Foundiougne mu def ko fa kon sëñ Touba am na ci côté boo xam ne sëñ Touba moo ko ñor ñu ne autoroute Ila Touba comme ni ko Kosa waxee rek ñun politique yëkkati wuñ waxuñu daray politique ndax wax si sa mbaaxu waaye du wàññi ci sa mbaax dara. kon yaakaar naa ne ñun autoroute bi ñun ñoo ko moom ñun waa Touba waaye nag ñun waa Touba dañuy boole ak yiir ñëpp ëmbaale ñëpp parce que Touba dafa ëmb lépp kon lu mu ci mën a doon lu ne rek ñun comme président ni mu ñu ko fi defalee rek du tee dañ ko ci sant gërëm ko di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak taysiir li nga xamante ne bii nag mooy sama kàddu yu mujj mooy man chauffeur si laay gën a ñaax parce que ñun ginaar sax buñ ko rayoon ñu ne chauffeur si rey nañ ginaar te am na ñoo xam ne dañuy def lu raw loolu kenn du leen tudd kon ñun chauffeur yàlla mi ñuy suturaal nañ dolli suñu bopp sutura gën a yar suñu bopp gën a ñaax suñu bopp dolli suñu bopp ay teggin parce que ku baax moom da nga bëri mbokk waaye ku bon ñu bàyyi laak say mbokki bopp kon loolu rek laay tàggatoo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ouverture autoroute bi it ñëpp ñëw dalal si ñu nekkul ni ñun waa Touba kese ñoo ko moom de ñun Sénégal gépp ñun ñoo bokk autoroute Ila Touba bi kon yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu tawféex defal ñu taysir barke borom Touba mi taxoon ñu ñëw fii taxaw di wax daray politique nag waxuñu ko daray politique ñoruñu sëñ Touba moo ñu ñor. jaa ngeen jëf mbokk yi ñoo ko gisandoo gis nga li nga xamante si moo ñu indi woon tey ci ila autoroute Ila Touba bi maa ngi feggoog sama ndeyjoor maam Thierno sama càmmoñ Koso Ndiaye maa ngi leen di remercier bu baax di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah ci seen beneen reportage jàngat sa ko